voilà ñu jëlaat ki nekk ci ligne bi Mouhamed euh, Niang. Mouhamed Niang ñu ngi maa ngi baax waa VIP People. maa yaa ngi eh, ñu ngi sant yàlla Mouhamed Niang la mu président mouvement ànd defar suñu réew. Mm-hmm, Mouhamed yaa ngi si eh, euh, ñu ngi leen di sant bu baax a baax alhamdulilah dama bëggoon participer rek ci émission bi. waaw ñu ngi yaa ngi en direct bi VIP People. aywa euh, d'ailleurs dañ leen di parce que. Mm-hmm. bu ñu waxee rek yéen a ngi def liggéey bu am solo. Mm-hmm. boo xam ni ngeen ànd ceeg seen directeur muy Tange Tandian mm-hmm. lépp loo xam ni ñun ñaa ngi ciy teg seen bët muy liggéey bu rafet luy jëmale Sénégal kanam Tange mm-hmm. mu ci ciy dox ndax ñu bëri jàppoon nañ ñi rek ci wàllu musique ci lay yëngu alors que li mu xam ci politique sax xamu ko sax ci musique dëgg la donc kooku ñu ngi koy remercier bu baax ndaw ñëpp koy sant benn ñaareel bi mooy lu mu bëggoon participer rek ci ki nga xam ne mooy Ngagne Demba Touré Mm-hmm. man ñi xawma ay nit lañ xawma ay lan lañu xawma ay mala lañu mom mm-hmm. mi ngi wax ci waxi papa Alé Niang ak ki nga xam mom moy mooy président euh, Ousmane Sonko sax lay wax mm-hmm. yow ko xamni buñ la bàyyee nga genn yow yaay upp làmmiñ dara jotu lo da ngay nek da ngay wér upp làmmiñ nit ñi di wax lu la neex di considérer neex mel ni yow ya mom nit ñi légui buñ la jappé tëj ñu na def na grève de la faim da fay feebar wala da fay nangam da fay nangam comme li ñu rapport sociaux bi amee nit ñi kenn loo ndaw ñi di leen defloo ay musiba yoo xamante ne si kenn mun na mun na ko wax mhm. Ousmane Sonko mooy kan ba kenn waru ko téye Papa mhm. Papa ah, Alé Niang mooy kan ba waru kenn waru ko téye ay nit yoo xam ne kenn xamul ba xam ni ay terroriste lañ kenn xamul fu ñu jugee tama ni mhm. dëkk kenn bu ko laax too gis lii dëkk la nga ci teg leneen ci ginnaaw dëkk mënta ne Sonko li mu def def na ko man def nañ ko mandat de dépôt téye nañu ko c'est normal ña fa dem gënu leen Bassirou Diomaye Faye xam ne ni moo toppoon ci moom mooy deuxième bi ñu ko tëjee ñaata weer la def. numéro mhm. mooy numéro deux est-ce moo ko gën. Mhm. ah ñoom Karim Xurum Xax ñoom nit dox moom moo leen fois. kon Ngagne Demba Touré kooku kenn waru ko bàyyi muy taxawaan kooku normalement tey jii waroon na ko fekk ci kaso bi ay nit yoo xam ne xamuloo fu ñuy jugee di luy taalum réew il faut ngeen génn il faut ngeen nangam Sonko mooy kan ba kenn du ko tey. may wax ñu naan ay Papa Alé Niang ay piqué crise xaw ma lan grève de la faim grève de la faim te yow boo génnee ëpp nit ñi la mi ñëw ñoom ñooy kan waaye Sénégal nañu waxante dëgg waaye ba parcelle moom amul benn tey vendredi comme ni ko ni ko média yi tuddee vendredi tous les dangers ba moom amul benn yëngu la vendredi tey la démb sax ak barki démb dama ne la instant bi dëkk bi ñëpp a ngi dox seen soxla ñun ñaa ngi liggéey dara xew fi dara mm-hmm. ñëpp a ngi ci jàmm waxoon naa la ko neewoon naa leen mm-hmm. fii dëkkub Cheikh Sidil Hadji Malick la dëkkub Cheikh Ahmadou Bamba la ñuy waajal màggal gi mm-hmm. dëkkub Cheikh Sidil Hadji Malick ñuy waajal suba ibitub jumaa ji Tiwaawan di ñaan yàlla lu waaye am def ca magum di waxoon naa leen ne nañ def très attention gis nga fii ku ko bëgg a taal yow yaay fay moom waroon na xam ni sax moom Sonko foofu lay mujj moom. ba plus de cinquante personnes ñoo dee ah boo ci boolee ñaar ñu dee barki dem yaram mat na cinquante personnes ah. ñii seen i tànk dagg na ñii seen i loxo mais lii ndax nguur jar na ko. nguur jar na lii ñu nar a taalum réew te ñoom presque Sénégal 17 millions d'habitants ñoon matul sax 4 millions comme ni ko Tans di waxee. dañu waxante dëgg. dama ni ñun moom ci turu mouvement ànd defar suñu réew. yéen nii nii réew maa ngi defaru rek kenn taalul taluñu ko sax te gis nañ disposition bu baax a baax bu général Moussa Fall jël gis nañ de ndax ñi doon jéem a taal soo xoolee li ñu ciblé mooy banque yi ak bitig gi bàyyi xel li baax premier jour barki dem banque yi leen ciblé ak bitig yi ak kër jàmbur yi parce que dañuy ñëw ci benn bitig teg fa ñaari pono taal pour bëgg a song banque bi dañuy ñëw ci benn bitig teg fa ñaari loolu nekkatul manifestation déggee ay ay ay ay nit yoo xamante ni euh, maanaam dañoo fare ak euh, parti boobu di Pastef naan Ousmane Sonko bu amul jàmm réew mi du am jàmm en tant que jeune lool lan lan lan ban jàmm. mooy li ma la wax moo tax ma ne la ñoom ay terroriste lañ parce que ciy wax ay terroriste lañu bu amul jàmm réew mi tam du am jàmm Ousmane Sonko kii taalkatu réew la ñoom ñu ñu ànd ak ñëpp ay taalkatu réew la kenn du ànd ñoom xale yu ndaw ñi ñu ngi sant bu baax ndaw ñi newoon naa la kenn dootu fi génn di xeex waxoon naa leen ko de newoon naa ko doo ko doo ko fi ñaar parce que ñu ko fi def ñëpp ay sàcc lañ ñu ñu raxoon ñëpp jàpp nañ leen parce que xam nañ ne ñii dañ ñoo raxoon di taal réew jàpp doomu jàmbur yi di rey barki demoo njaay ñi taal bis bu xam ngeen ne xam ñu kagule wu ñan la gi màggal gi ñu naan nañ taalum réew pour lan loo xam ne mu sënta ñooñu xam ngeen ne moos ne seen kàddu yëpp mooy jëlee fi kilifa diine yi seen kàddu yëpp mooy jëlee fi màggal ak gàmm ñu sañ am na fitu naan ñu fi jëlee màggalu sëñ Tuubaa gi ñun am na suñu naan jëlee fi màggalu gàmm ak sëñ bi Seydi Hadji Malick wala Maam Baye Niass acca taluñu ko jërëjëf mhm. donc dama ne la instant bi ñu ngi sant ngañ jëma turé nag li may wax laay waxaat kenn waru ko bàyyi muy taxawaalu kii nañ ko tëj Ngagne Demba Touré kay jamono ji il est dafa daal làqu rek ndaxte jébbal nañ ko convocation boo xamante ne ñëw wuy si ko ma ne bu ñu ko bëggee jàpp Sénégal fii enquête bu leen neexee du fanaan li may wax xam ko taal ñi ngi sant ñëpp ñi a santaat ndaw ñi instant bi taluñu leen ñi ngi sant ñaa ngi liggéey dara dañ ma waxoon dañ la waxoon ne buñ ko buñ ko jàppoon réew mi nekk dóom instant bi réew mi dafa nekk dóom ah gisaguñ ah? mhm. dóomi lan ñi ñaa ngi liggéey ñi ngi salaam nañ dem liggéeyi continuer uti Sénégal mën na loo jox sa njaboot nga nañ ñu may jàmm jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup.